mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen site 28 pro TV ñu ngi am mbégte bu baax a baax comme ni ko sëriñ bi defee rek ci appel bi nga xam ne ñu ngi ci àndoon ak sunu naataango yi euh, taskatu xabaar yi dañuy daal di jublu nag euh, ci maanaam li nga xam ne moom mooy question d'actualité euh, sëriñ Jili abdul Fattah moom nag souvent dañuy xaar rek maanaam moom ci yoo xam ne mi ngi soxal askan wi ci wàllu actualité. ñu def ci benn waxtaan bu bu am solo sëñ bi gannaaw bi nga xamante ni tënk nga woo taalibe yi woo mbokk yi wëllëre yi xarit yi euh, Kazu Rajab euh, fi ñu tàmbalee muy actualité deux ans yoo xam ne nii maanaam célébré ko ci ak ambiance euh, solobirité rek maanaam ci jàng kaamil jàng xasida wàcc alxuraan loolu la ko def mais ren mu mel ni yëf yi ibbeekuwaat na ndax mbiri sëñ fàllu deux ans. bu ñu dem ci troisième année bi pour yeesal ko dana am lu mu indaale. di la nuyu di la sant di am mbégte lool ci ñëw gi nga xam ñëw nga fi fekk ju fi ah ni nga ko waxee xam nga suñ fallu moom nit ñi dañ ko bëgg te xeer ci lool. damay wax ne maanaam mbooleem mbooleem Sénégal mu doon xool ci ñi ëpp ay soppe ci réew mi suñ fallu ci ñi jiitu la bokk. ah waaye nag ci loolu it waa kër sëñ Fall moom dañoo am ak taalibe di wéy ay ndigal ci lépp loo xam ne lu leen digal ñu jafe ko jafe ko ndax Cheikh Amadou Fall kat moom dafa jaayoon ak njuréem jënd ko taalibe kon ñun ay taalibe lañ looloo waral daaw jeeg ak Covid bi bi mu amee bi ñu ko yëkkatee laaj ndigal sëriñ bi sëriñ bi nañu nañ ko fomm ba déwén ñu ñu daal jëfe jëfe ndigal loola. Euh, daaw it ñu doxewaat noonu mu joxewaat ñu ndigal ñu defaat noonu ren jii nag ci la ñu jox ndigal nañ ko màggal ne bu ñu ko bu ñu joxutu ndigal it dañ koy wéyal comme di di dugg ne ndax ñu ndigal rek la ñu jëfee koy fas yéene def comme nañ ko daan baaxoo di def ci at ya ko jiitu euh, donte maanaam euh, Sénégal ñi ngi wax ne ñi ñi jàpp ne feebar baa ngi fi ba léegi yéen am na tamit beneen rôle bu ngeen xam ne da ko joué ànd ceeg état bi. waaw xam nga ñun moom dañoo dañoo gëm yàlla te doyloo ko gëm dogal ndax boo xoolee abiyaat yooyu yi nga xam ne Cheikh Mountakha joxoon na ko ca jam ca ginnaaw ñu ko doon jàng man sànna xayru la yuux ni ayudu fa saaki fi daarin sookatin wa dur addur wa nafa mina rahmaani laysa minal budaani wa sudaani loolu Sëriñ Tuubaa moo ko woy loolu dafay wane ne maanaam njariñ ak lor nekkul ci kenn ku dul yàlla ñun nag loolu bañ ko xamee ba tey ca lañ ca lañ nekk di ko di ko dund xam ne feebar yàlla moo koy moo koy joxe waaye waaye it wér yàlla moo koy joxe te ku ne suñu boobu mi ne danga nga da nga mucc da nga mucc ku mu ne ne doo ci mucc doo ci mucc ñun foofu lañ teg suñu tànk naka jekkit sëriñ bi nag mooy foofu la teg tànk waaye ak rafetal ak maslaa ci jamono fi mu toll moo waral bi ñëpp aaye moom mu aaye comme ñëpp waaye ñun moom xam nañ ne moom mbas mi nu metti metti metti du dox suñu diggante lañ daan defal sëriñ bi ñu defal ko ko ndax sëriñ tubaa jaral nañu ko ndax sëriñ tubaa kat suñu boobu da koo jaraloon bakkanam kon ñun gëm nañ gëm goo xamante ne bi jaral nañ suñu bakkan ba tax na luñ koy woote duñ nangu mukk lu dox suñu diggante moom kon nag loolu moo waral ñu ñu jàpp ki du ko def tey it mbas yàlla ñu ci yàlla yàlla mi ngi ciy defal euh, sutura bu baax it ndax ku ne xam ne ne adduna moo tëddee noonu damay wax ne adduna yàlla mooy def siècle bu jot rek day day wanewaat boppam. ndax tey tubaab yi ku ne xam na ne ñoom dañuy dañuy dañuy waajal téeméeri at yu ñëwagul siècle bu ñëwagul dañ koy waajal di xalaat la ca war a xew la ci waaye yii yëpp Covid bi ñëw nii mbetteel la ci adduna bi yëpp kon loolu day wane ne sunu boppam day wane boppam ne maa fi ne maa ngi fi ba léegi tey du ma fi jóge tey lu am maanaa loolu moo waral nag képp koo xam ne ab julli nga da ngay gëm loolu xam ne sa dundit da ngay sóoraale loolu da ngay sóoraale wér da ngay sóoraale wér di da ngay sóoraale faatu te musiba bu ñëw yàlla am na ñoo xam te ne bi dana leen ci musal waaye am na ñoo xam du leen ci musal ñu nag dañuy bàyyi lool nag la la ci lay tax nga noppalu ca mooy da jël lépp delloo ko sa sa borom rek lu mu dogal ci yow neex na ndax nit ñi léegi dañuy gëm yàlla waaye duñ gëm dogal yi wala dañuy gëm yàlla waaye duñ ko wóolu ñun nag yàlla dogal sëñ bi tàggatal nañ suñu bopp moom ci ñun ba nga xam ne gëm nañ yàlla gëm dogali ba lu ñëw rek nangul nañ ko ndax xam nañ lu ñëw du kenn ku dul suñu borom tabaaraka wa taala mu am solo lool euh, ci weeru rajab bi bi muy dugg si euh, la ñuy dem ci actualité bi nga xam ne dafa tombeek euh, ñun jóge ci élection gox yeeg goxaan yi élection locale yi maire yu bëri falu ci yu bees ay surprise am ci mu tombeek nag rajo bi ñu koy màggal di première màggal bi sës ci élection yi yéen peut-être yéen a ngi xaar ay élus yi wala boog ñi nga xam ne ñàkkoon noonu pour dabu si waat wur yeneen bay tànk euh, am nga am na benn benn ñag bu ngeen di teg seen digganteeg ñoom pour pour man mën leen a xamal ne leen yëf yi du du maanaam politique bi du du ci du ci sëriñ si ngeen di daw di yaakaar lépp wala askan wi la wala nu mu demee noonu ana lu ngeen leen di xaare yéen. waaw xam nga man damay wax ne <clears throat> politiciens yi parce ñëpp a yem bëriwul. muy ki nekk ci pouvoir ki ki nekk ci opposition ndax dama leen wax ma ne leen bu ñu tegoon ab kaamil ne kuy jël kuy kuy ku ñuy fal nga waat ci ne yàlla rek ak bëgg liggéey rek rek rek rek moo tax ngay ngay laaj li waaye soxlawoo ci lenn lu jëm ci sa poche soxlawoo lenn lu jëm ci sa jàpp naa ne ñu bari duñu waat kon nag euh, noonu rek la dem nit ñi nag ku ci nekk am nga droit ci xool ka nga xam ne moo la doy xam am ka nga xam ne yaakaar nga ko wala ak ki nga xam ne am nga am kóllëre nga ànd moom jàppale ko donc kuñ fal nag da war a am ngor gu toll ne bu fekkee ñëpp dañoo bàyyi ñëpp tànn la jiital la aw sas la as gor nag buñ ko sasee yan nañ ko loo xamante ni bii fu mu mën a nekk war nañ doxee ne yan bi yan bu diis la ba tax na li ñu yaakaar ci moom mu góorgóorlu ba def lépp wala mu def sax lu ëpp li nga xamante ni moom lañ ko yaakaar kon nag donc ñi euh, nga xam ñoo leen éli yëpp loolu lañ leen di conseil ñi nga xamante ni bii nag ñooy perdant it ñu ngi leen di encouragé te it di leen di leen ñaanal ñu góorgóorlu doxee noo xamante ni bii ndax comme askan yi ñooy fal askan yi ku ñuy fal defe naa day fekk ñu gis loola loola doy ci ñoom ba tax ñu fal la ngay ngay fexe di wane loo xam ne ëllëg xëy na bu ñëwee ñu fal la donc foofa daal laa ci laaj maire maanaam mooy jaraafu dëkk bi mais moom rôlam euh, peut-être am na ñoo xam ne nii dañ koy manqué donte falu nan xam seen rôle Euh, da nga leen koy xamal wala doom lan lan nga jàpp ne moom moo war a nekk ab ab rôle dëgg-dëgg par rapport ak askan wi nga xam ne ñoom ñoo ko fal. waaw xam nga erreur bi fi mu njëkk tàmbalee mooy nit ñi léeg-léeg danañ fal koo xam ne faj mere tax ñu fal ko danañ fal koo xam ne mere ko tax ñu fal ko am na ci ñoo xam ne dañuy fal ay nit mais du intérêt commun moo tax ñu fal la am ñoo xam ne dañuy fal ni du intérêt commun moo tax ñu fal la maanaam intérêt personnel lañuy jàpp ci yow wala falu it ñu di la fal it intérêt personnel donc te te nit ku nekk daal da war a nekk euh, nekk ñaar yi sëñ laa dafa wax sëñ sëñ Tuubaa Xaadimu Muxtaar dafa am ku ma waxoon ci njabootu dana leen dane ñaar yi képp koo xam ñu ngi may tudd di la tudd ñaari war nga cee doon benn war ngaa doon julit piir war nga doon gor su set wicc te daanaka ne daane daane as gor day ñeme ab coono ab julit day ñeme aw day ñeme ab ab ab am nattu aw naqar kon nag képp koo xamante ni bii euh, fal nañ la da ngaa war a góorgóorlu ci li tax ñu fal la nga nga wane ko ndax it nag euh, sunu boobam dafa wax ne alxekmu takasur ata surtum maxaabira kala safa taxlamoon suma kala safa taxlamoon kala taximal yaqin la taraw na jayim suma la taraw naa xëy na yaqin su ma la tus aluna yow si an nañ baat boobu nag su la tus aluna yow si an nañ ma dafa mel dana ku ci nekk ëllëg la nga la yor lépp dañ lee koy laaj benn bal par benn la nga amoon ci la donc loolu nag bu fekkente bi ki ñuy fal jiital na ko mooy jiital na ak ragal yàlla malheureusement nag léegi nit ñi maanaam euh, profil yi ñuy tànn defe naa ne loolu duñ ko ci sax waaye war nañ ki fal ñu xool ndax ki ak ngëm yàlla mi ngi ci moom ak ragal ndax mi ngi ci ak doyloom mi ngi ci moom ndax ki am na lu mu téye ba noppi ndax jaaduwut ngay fal koo xamante ne bi amul dara loolu du kenn du ko war ko def war nga ki nga xam ne yaa ngi koy fal mu leer nga xam ngeen kii bu bu faluwutit mën naa demal boppam waaye ki nga xam ne amul dara mënul dara bëgg ne da koy fal kooku boo falee bu jëlee sa alal yaa yaa ko ko jox donc loolu moo tax yépp ñu ngi koy delluwaat nag ci askan wi rek xam ne daal ku ñuy fal daa dañoo dañoo ñoo ko war seetal seen bopp waaw bu mer tax ñuy fal nit bu mer tax ñuy folli nit Sénégal léegi ñu ci bëri bokk ñu ngi jaar ne ñu dugg ci biir dëkk bi nga xam ne moom mooy Touba ne dañ fay war a maanaam euh, kal li nga xam ne moom mooy élection muy ci élection yëpp rawatina sax ci élection locale yi euh, ndax lii xew bërki démboo Ndiaye ak liste blanche bi nga xam ne nii euh, jàpp nañ ne maanaam nit ñi biñ koy def seetuñu ci dara ñoom mer lañ ci demee ba jël liste blanche voté ko mu gañe li nga xam ne moom mooy liste nguur gi. waaw euh, waa Touba moom li may leen di wax mooy dañu xam ne fii kenn kër la te kër gi kan moo ko moom mooy Serigne Touba Touba titre foncier bi mooy 528. titre foncier bi Touba ci biir Touba kenn mënu fi am titre foncier ku ndax benn titre foncier la benn titre foncier mooy génn kër kon nag jàpp naa ne ku fi nekk te gore ki nga xamante ni moo fi nekk fu mu jubloo da nga faa war a jublu ndax ki la yaatal ci këram ne la nekk te bu ko neexoon tey tey tey nga génn ndax sëñ Sidi xamoon ne sëñ Mota am na am na doole Touba ku ko fi neex tey doo fanaan waaw am na privilège boobu kon nag képp ku nekk ci dëkk bi da ngaa war a ànd ak yar ànd ak teggin tey di déglu sëñ bi di ko xool jubuwaayam. fu mu jubu nga jublu fa fu mu wan ginnaaw nga wan ko ginnaaw loolu mooy ak taalibe parce que Touba moom sëriñ bi moo fiy décidé te li gën ci dëkk bi jàpp naa ne sëñ bee ñu ko a xam ñun ñëpp waaw bi nu ko neex na tànne nu ko fu neex na jublu waaye lii ak taalibe daal ci bépp murid mooy sëñ fu mu jublu bul xool bul xalaat bul xool te sëñ bi jublu jublu fa rek boo bëggee am ndam boo bëggee noppalu donc Touba nag dafa am phénomène bu fi tàmbali nekk mooy ñi nga xamante ni mën naa ne ñoo fi sancaan yi ndax nga xamante ni seen maam ci àll ba lañ jógee ñëw bëgg ñëw bëgg yor ay làmmiñ yu rëy di wax lu ñu warta wax ak lu ne seen yéen nekku ca ñooñu nañ xam ne fii dëkkub sëriñ Touba dëkk nag boo fi nekkee fexeel borom dëkk bi lam ne nga lam bëgg nga nekk ca bu fekkee lam bëgg mu nekku ci nag da ngaa war am gore gu toll ne génn dëkk bi abal ko ndax Touba du Mbakke Touba du Ndakaar Touba du Bambey Touba du Diourbel dëkku dëkkub Serigne Touba la sëriñ bi nag ku ko neex na ko tànn bu tànnoon ka gën a yées ci àdduna it kooku daf daf ñoo war a neex dañoo war a ànd dañ ko war a ne ko li nga tànn Mbakke neex nañu ñu ànd ci moom loolu mooy ak taalibe waaye doxin yii ñu doxin yi du ak taalibe du ak yar du ay teggin te képp koo xamante bi yaa ngi wuuteeg jublu sëriñ Touba ya da nga day ak <laughs> yaraanga joo xamante ne bii doo xam foo koy foo koy nettalee kon nag nañ def attention bu baax ci phénomène bii ndax xam ne Touba tey ku fi nekk it da ngaa war a xam ne Touba nga nekk dëkk xurma la ndax dëkk bii sëñ Touba bi mu fi bi mu fiy nekk. bi mu koy sanc sanc wu ko woon lenn lu dul jaamu yàlla ak wéetal ko moom la ko sancee loolu mooy baas bi waaye nag sëñ Touba suur boobu mooy koo xam ne buy may mayam yi day rogalaat moo waral tey dëkk bi doxee ba waaye sëñ moom lool rek ko taxoon a jóg kon nag ku yàlla dogal nga ñëw fekk si ko fexeel ba lay bëgg-bëggam lépp nga nga sàmmanteeg moom la muy bañ lépp nga moytund ko tey kii fi nekkal kii fi sëñ tubaa ndax ki waxtu nekk tubaa sëñ tubaa ngi fi mooy sëñ tubaa ku fi nekkal sëñ nga ne ko jàkk di xool jubluwaayam fu mu jublu rek jublu fa fu mu wan ginnaaw wan ko ginnaaw loolu mooy mooy mooy mooy mooy defee moo yoon murit kon wute nga ak xalaat ak ñi jàpp ne Abdou Lahad Ka war na mën a démissionner tey wute naa ñëw loolu ndax loolu du du ak taalibe ndax sëriñ bi mënoon ne lii moo ko tànn ko tànn rek lam tànn nañu neex waaye sëñ bi tànn tànnam nga ne sëñ bi lu tax mu tànn ko loolu ak ñàkku taalibe ci la tàmbalee te nag nañ def très attention jublug sëñ tubaa kenn du ko wan ginnaaw waaw ak nu mën a mel nag ndax dama laa wax ne ak nu mën sëñ bi kam bu tànnoon ka gën yées ñëpp nangu na yées moo gën a yées suñu warteef mooy ànd ak moom ci ci tànnam kese point point nag euh, ñi ne Touba fi mu toll nii tey wax nañ ci maanaam màggaayam Euh, ak tamit ñu ne dafa war a xool ci maanaam euh, donte le titre foncier la ndax benn kër la ndax benn kër benn chef de famille moo fay nekk kilifa day am kilifa euh, waaye dañu ne maanaam bu fekkee wàllu maire dañ ko war a mën a yaatal mu am ay mairie d'arrondissement wala ay maire yoo xam ne ay mairie maire ndax kenn mënu koo contrôler loolu looy looy looy looy confirmer la wala loo bëgg maanaam ñu ñu xoolaat ko. lu may confirmer la man loolu sax idée boobu dama ko yàgg am Euh, Sidi mënoo mënoo mënoo ne Touba mooy deuxième capitale de l'habitat du Sénégal Dakar ñaata mairie ñoo fa ne Thiès gee ñaata mairie ñoo fa nekk te Touba moo ëpp junni yoon cees kon nag euh, loolu nga wax mooy mooy dëgg képp ku ñu fi jiital it charge ba day di si yow. war nañu war nañu normalement Touba man jàpp naa ne gën gaa néew néew néew néew fukki maire war nañu foo mën a war nañu fee man am parce que it nag euh, problème bi mooy booy xool la ëpp ci Touba ak développement Touba sëñ bi la du mairie. sëñ bi mooy génn alalam sëñ bi mooy def mooy defi ay pexeem sëñ mooy mooy mooy mooy mooy jëflante gouvernement bi pour ñuy def ci yenn yi waaye du maire yi léegi nag Touba ak recettes yi nga xam ne moom lay am jàpp naa ne bu ñu ko organiser jaarale ko ci aw yoon fexee nag tas ko tas ko ci gox gaxaan fu mel ne ndindi gi ndindi ni mu toll warut nekk ab village fu mu nekk ab village ak ak yeneen quartier yu mag yi fu mel ne Daaru Xudóos ni mu nga ñëw dem Daaru mën naa ni mu toll yooyu yëpp fu ci nekk waroon na am maire te jàpp naa ne nag loolu danañ ci jóg di ci di ci waxtaan ndax ku mel man mi maa ngi ciy xalaat te ni ma ci amee xalaat bi it am na ñeneen ñu mel ne man ñu ngi ciy xalaat ba tax na jàpp naa ne yàlla mën naa dogal balañ caa àggaat loolu am ndax bu ku ne xam ne Touba as communauté rurale rek la woon ak village la as village la woon mujj mu nekk ab village mujj mu nekk communauté rurale léegi tey ñu ñu ba léegi communauté rurale ba jogu ci ñu ñu def ko maire léegi nag comme Touba ville spéciale la il faut mu am doxin wu spécial moo xam ne sur la plan administratif dana dana dana gën a ñoŋal dëkk bi dana gën a wooye aussi ci sëriñ bi ndax sëñ bi parce que li mu yenu ci Touba dafa diis te moom rek moo ko yenu kon nag dafay baax li ñu xalaat ci tey jàpp naa ne am na ci borom xam yoo xam ne tàmbali nañ ci xalaat ci loolu. waaw. Euh, barki Demba Ndiaye ñu ñëw ci question euh, euh, maanaam ci plan national parce que ñu ngi xaar ba léegi gouvernement bu bees ndax premier ministre dañ ko annoncé woon avant élection yi mën naa dellusiwaat sax ci local yi ndax looloo taxoon nit ñi tamit ku nekk di góorgóorlu di ba gagné sa gox ba ngir. post poste ministériel wala poste direction boobu loolu moom indi ay liste parallèle loolu noonu lenteur boobu noonu wala yée li nga xam ne moom mooy nar a xew nan na indil njëriñ euh, réew mi ci ñaari at yi nga xam ne ni jàpp nañ ci dese moom président. waaw euh, jàpp ne <coughs> euh, président changement gouvernement bi lu mu war a def la ndax xam naa ne am na ci ay ministres yoo xam ne liggéeyuñu dara tey nag réew war nga boo toogee boo falee nit yaakaar ko boo doxalee moom at rek war nga xam ne kii. koo ko fii bàyyi la wala koy tuxal la moo tax changement du gouvernement moom lu munul mënul ñàkk la ah jàpp naa ne euh, njiitu réew mi jàpp naa ne lii euh, dana ci jël jàng ay leçons yu bari surtout ci local bi ñu génn nii ba tax na dana jàpp parce que it nag mënul laa jox yenn ndombay tànk ndonk ndombay tànk yi ci dëkk ba nga ne mun waa dëkk ba mënul mënu mënu defoo fa lu tax waa dëkk bi ànd ak yow kon kooku dangay war a ne mu mérite leen la fa jox parce que mbay ci sawewu tànk war na ministre bu mën a doon wala directeur bu mën a doon fu ñu ko samp balaa gox ba mu nekk donte nag état ngay liggéeyal muy Sénégal gépp nga war a couvrir waaye fa nga xam ne fa nga féete war nga faa def loo xamante ni bii ña nga dëkkal wala say mbokk boo wootee ñëw si la waaye bu fekkente ne jox nañ donc te jox ak moyens yi lañ wax te fa nga ne boo wootee say mbokk war na ginnaaw kooku da ngay xam ne moom maanaam ku mérito lañ ko jox. kon nag jàpp naa ne président jàngee na ci lii te jàpp naa ne xëy na gouvernement bu bees bi bu muy tegal dana fi teg ñoo xamante ni bi jàpp naa ne dana wuuteeg tey donte nag ñi fi ne nii ñi fi teg nii am na yoo xam nañ ay résultats mu xool ñi nga xam ne liggéey nañ am na ay résultats yëpp xam nañ joxe nañ ay résultats mu bàyyi leen fi ñi nga xam ne joxul leen fi teg fi ñoo xamante ni bi jàpp na ne ko indil ay résultats yu baax indil ko ci ci askanu Sénégal lii xeeñ lu bees moom mooy jàpp na ne maanaam retrouvaille famille libérale euh, ci diggante Macky ak ki nga xam moom mooy Abdoulaye Wade njabootam ngi dajaloon ndax bërki démb rek tuddee na ko stade bi nga xam ne ni moom moom daloo bees waaye tamit ñuy xaarandi ba léegi moom ñu ñu mën a fësal seenu maanaam lëngoo ngir tabax tabax Sénégal boo xam ne ni boo émergent la comme ni mu koy waxee. waaw xam nga Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum dafa mësoon wax ne jubboog sama xaritu demb moo ma gën a am xarit bu bees Macky Sall ku ne xam ne ne njabootu Abdoulaye Wade la. ñëpp xam nañ fi ko Abdoulaye Wade tegoon ñëpp xam na poste yu ko Abdoulaye Wade jox kon suñ demee ba ab tàqali koo am war nañoo mën a juboowaat àndaat loolu lu logique la. loolu lu logique la lu jaadu la tey lu war la tey loolu mooy seen avantage ñoom ndax Abdoulaye Wade dafa waxoon ne libéraux yi dañoo bëgg ñu nekk fi pendant cinquante ans te comme loolu xam naa ne objectif la boo xam Abdoulaye Wade dafa nekk koo xamante ni bi day visionnaire fa muy gisee dafa sori. jàpp naa ne loolu jógeegu ci ba tey ndax bi mu fi jógee Macky Sall di libéral moo fi toog ba tey jii te jàpp naa ne fii ci Sénégal libéral yi ñoo fi ëpp doole kon jàpp naa ne bu buñ booloo ñoom bu ñu booloo jàpp naa ne bëgg-bëgg Ablaye boobu dana am te jàpp naa ne it booloo gi man jàpp naa ne dana am ndax man mi waxee nii def naa ci ay ndax man mii nga waxee nii relation relation boobu dama dama dama cee yàgg a dox diggante Macky Sall bi mu nekk président assemblée nationale ba bañ xeex boobu bu ñu ko doon xeex yëpp man bokkoon ko doon ñi ko doon jàppale président Macky Sall man maa boobu mi ngi nekk premier ministre 2004 bi mu nekkee premier ministre maa ngi lay wax benn exclusivité boo xamante ne bi sii di lu bari bari mosuma leen ko wax mosuma ko wax fenn gis nga Macky am Abdoulaye Wade ku ko yàgg yéene la mu doon président de la république gis nga bi ko président joxee bi mu ko nommee premier ministre daf ko wax ne ko fonds yi ma joxoon Idrissa Seck dama koy téye du ma la ko jox ndax xaalis dafa mën a sànq nit te dafa dafa am fu ma bëgg a àgg yow te xam naa ne fonds su ma la ko joxee la may bañ dal Idrissa Seck dal la kon dama la koy xañ ndax nga mën a liggéey ba yaakaar ji ma am ci yow mu bañ a tas kon objectif boobu la amoon waaye nag li nga wax naan waxtu wu nekk boo jógee bëgg dara wala boo jógee ñu joxañ la rek nit ñi bu xamee fa nga jëm doo àgg ca looloo tax nag ñu ñu ñu xeex yi am yëpp ay complot la Macky Sall la li dox diggante ma président Wade ay complot la maanaam ñoo xam ne ñoo jaxas te ña ko jaxase woon boo xool ñëpp léegi ñu ngi àndaat moom ci yëf yi kon nag xam naa ne cofeelul googu Macky moom la am ci lay Wade Abdoulaye Wade it moom la mu am ci moom ndax dañu wax ne nit ki lañ njëkk nekk ci moom rek mooy liy dëgg ci moom donc moo tax ma jàpp ne yii fi am yëpp man naa mën naa jeex rawatina sax ku tedd kii di sëñ Tuubaa tey mu Cheikh Mountakha jéego yim ci dox ak wax jam ca wax ak lam ca def man jàpp naa ne Macky Sall ab ab taalibe la Abdoulaye Wade ab taalibe la te jàpp naa ne loolu leen sëriñ digal danañ ko jafee lu nekk nag li tubaab di chaque chose à son temps kon jàpp naa ne fii lii firndeel nag yii nga xamante ni moo day ni firndeel na ne xëy na mën naa am tout est possible ndax si di damay wax naan politique moom tout est possible lu ne mën naa nekk te jàpp naa ne avantage ci Macky mooy mu jaxasoo waa waa waa waa PDS yi fi libéraux yi fexe indi Karim Wade mu ñëw ñu tekk ñu ànd liggéey pour que l'avenir bi continuer parce que xam naa ne loolu rek mooy li koy génn ci situation yu nekk nii waaw. mairie euh, foog nga liggéey ak état. ndax euh, maanaam sa gox euh, di mën a bénéficier wu ci ay financement yu bari wala ci ay appui yu bëri lu demee ni comme gis nañ fi Bamba Fall ni mu demee wuy ji président de la République ñi xaarandi ko est-ce que jàppari keneen mën na def mën naa ci cité Barthélemy Diaz nga xam ne dafa yore Dakaaru te foog mu ànd ak état ndax loolu noonu lu nu mën a maanaam séntu la muy am ëllëg wala. xam si dama la wax ne politique tout est wala naan Barth dafa dëgër boobu. waaw gars yi ñu ci bari Barth politicien la gars yi ñu ci bari intérêt commun taxul leen a jóg intérêt personnel moo leen tax a jóg politiciens yi presque ñëpp ñooy même numéro di ma ko waxee sànq moo tax jàpp ne lu mënul nekk ci politique amul te Barth it am na am na calendrier boppam ndax li nga xam ne li li bukki bëgg la bar bëgg maanaam maanaam jàpp na ne fas yéene wut rek di toppee rek ndax fi ne nii fi ne fii Macky ne nii tey mën na koo bëgg. te mairie Dakar boo xool fu mel ne France en général boo nekkee maire Paris rek Sarkozy Nicolas Sarkozy maire Paris la waaye bi mu ci jógee la daa dem président la République donc avant am nay avantage parce que mairie bu Dakar xaalis fonds yi dafa bari moyens yi bari peut-être que nag boo boo ci góorgóorloo taxaw état peut-être que parce que ku ci euh, ci politique moom ku nekk da ngay calculer sa intérêt. ku nekk da ngay calculer sa intérêt fi nekk moo tax ma jàpp ne parce que Barke boo xoolee début ba xamutoon moo tax mu waxoon fi ne fasuma euh, waaye bi mu xam ne ne mënul dem sans état. te loolu firnde li mooy mooy xalifa Sall bi ñu ci xeex te gis nga ko dakaar mujj na dematu dëkkut léegi nag pour avantage nag pour am ay résultats surtout ci nit ñi ci bëti nit ñi il faut mu taxaw ak état parce que am na ay procédures yoo xam ne état rek moo ci mën a moo koy mën a appuyer xëy na nag ni muy naxanteeg état ba mën a réaliser yenn procès yi ci Dakar dana fa gañe loo xamante ni bii loolu mën na koo jural lu ne ëllëg moo tax moo wax la ne la politique moom tout est possible Euh, am nañu yaakaar ko ñu ñëw dellusiwaat ci Touba ak euh, wàccaayu Kazu Rajab bi euh, gannaaw bu ñu génnee ci actualité yooyu yàgg nga ko jooytu muy wàllu insécurité rawatina fii ci Ndindi ak màggal gi nga xam ne moom la ñu dëgmal tamit jàpp na ne affluence bu bëri danañ ko fi maanaam mbooloo mu bëri danañ fi taje loolu nga doon jooytu ci wàllu insécurité fu mu toll tey. waaw Sidi alhamdulilah ndax am nañ ci ay résultats yu baax a baax ndax lu mel ne li fi daan xew gëj na fee xew bi mujj nañ renforcer waat seen éléments yi ñu ngi mujj di di di di circuler ci mbedd yi ba tax na ba pare xam naa ne ak renseignement yi am ak yooyu yëpp renforcer nañ ko moo waral boo xool boo xool at mi 2020 bi man daanaka dégg wala 2021 bi dégguma ci lenn loo xamante ni bi daal lu insécurité la lu am ci dëkk bi kon nag ñu ngi am ay résultats kon nag loolu moom na boo xool même au niveau de Touba gis nga ne agression ba ak ñi daan ñëw di yàq ñëw ci biti ci yëpp boo xool wàññiku na par rapport ak année yee passé kon nag ne loolu moom euh, satisfait na waaye nag na gën a yokk ndax xam nga Touba il faut ñu xam ne nekkatul ab village dañu war a dañ ko war a considérer presque comme capitale comme ñi Dakar Dakar ñaata commissariat moo fa ne ñaata brigade moo fa ne donc te Touba léegi ñëpp fi daw jëm si kon nag loolu dafay baax luñ ci mën di def ak luñ ci mën a gën a renforcer yu sécurité rek du doy ndax sécurité moom nit ki pour mu am liberté il faut moom sécurité kon nag euh, maa ngi profité occasion bi di lancer appel ñu gën a renforcer xam ne lu mu gën a bari bari rek waaw. Euh, ñu wax ci tamit bala ñu koo jeexal euh, dafa tombeek nag ci weeru sëñ Fallou bii ni weeru Kazu Rajab euh, ci la sëñ Fallou maam sëñ Fallou mooy nekk na sëñ Touba. Euh, Cheikh Mouhamad Lamine Baara nekk Serigne Touba Cheikh Mouhamad Lamine Baara ak Serigne fàllu benn bas euh, dox seen diggante kii ñuy màggal euh, bés ba mu ganee àdduna kii ñuy màggal bés bu mu fi jógee loolee tey nga xam ne daje na ci njabootu sëriñ fàllu gi ak ci yéen ñëpp naka ngeen koy waajalee. waaw xam nga Serigne Fallou moom dama leen wax ne la Kazu Rajab moom mën naa ne mooy deuxième événement bi gën a mag gannaaw màggalu Touba ndax ni ma la ko waxee léegi si moom nit ñi dañ ko bëgg. doomu aadama yi doomu aadama yi nag pon génn na murid génn na sax jullit yi Sëñ Fall ñëpp ko bëgg looloo tax nag bisam moom nit ñi duñ ci am sago ñaareel ba it bisam dafa nekk bis boo xam ne dama naa ne nit ñi dañ koy fay bor ndax Sëñ Fallu dañ daa lebal murid yëpp ndax bu ñuy wax Touba tey Sëñ Fallu moo tax moo sa Touba dama lay wax euh, dama lay wax dama ci wax rek ñett siidi gis nga Sëñ Touba bi ñu koy indi ci tuubaa wax nañ ne lañ fi nekkoon ci kër matu fukki kër ñaari kër nag lañ ci gënoon ràññ muy kër Daaru Xudoos muy kër boppam gi ak kër Sëñ Fallu Sëñ Fallu moom bi ñuy indi Sëñ Tuubaa boo fekkee mi ngi bi nga xamee ne sëñ bi jóge na fi ba Cheikh Moustapha ne fi ba jóge fi tàmbali jumaa ji jóge fi Sëñ Fallu benn objectif rek la bi ndax mooy njëkk mooy xam na ne Sëriñ tubaa dafa bëggoon a dem Makka ndax Sëriñ Tuubaa wax na ko alayhi sali wa salim bil jamia wa xudni lil baqiya allasi ibtidaa ibnu masxuun yàlla ma yàlla woo ma jëb ma ca pàkk ba nga xam ne ibnu masoon moom moo ko sanc muy bàqee googe ibnu masoon lañ fa njëkk a moo tax sëñ Touba bi mu jógee bi mu bi mu ñëwee Touba 1927 28 la sëñ Fallou daal di waaj dem màkk ànd ak maam Cheikh Anta waajur mu ndaw bi ak sëñ bu Bousso ak mbokki taalibe bi mu àndaloon def ci yoon wi pendant trois mois 24 jours bi mu bi lem daj yëpp bi mu noppee li mu wax mooy def naa ko addee Cheikhul Khadim fi ne sii ma wax la ne baatub seexul xadim sëñ Fallou moo ko njëkk a wooyee sëñ Touba moo créé moo boobu sëñ Fallou bi nga xamee na euh, Cheikh Moussa nee na fi ba 1945 jóge fi tàmbali jumaa ji jóge fi 47 sëñ Fallou da objectif am lenn la mooy jumaay Touba ji ak valoriser Touba moo tax moo xam ne ñett rek ma ñor sëriñ bi liggéeyam bi ak dëkkam bi daa di njëkk nag ne euh, dëkk kat balaa développé day am aw yoon. fekk Cheikh Moustapha bi muy bi muy tabax jumaa ji tubaab bi dañ ko wax ne ko pour pour pour jumaa ji nekk il faut raay bi ñëw parce que matériel bi mënul ko woon saf ci leen oto amu fi yoon amul il faut mu raay bi Cheikh Moustapha moo indi raay bi ba ba gaar mu toogee moo jëlee gaar bu mag raay indi ko tubaab parce que booba bagage bu masaa ñëw gaar bu dem di ko yanu ak di ci ay sareet di ko indi jumaa ji sëñ Fall dafa su metti daal di xëccaa raay bi ba mu ñëw ci wetu kër yëpp nag mooy jumaa ji na taxaw dëkk bi na développé 1953 Sëñ fal moo indi route bi jëlee ko Cana ba fekk booba Canaba la route bi yemoon diggante Canaba ba ba Touba Sëñ Fallu moo ko moo moo indi route mu nekk 117 kilomètres 1953 lañ tàmbali liggéey ba 1957. nga xam ne diggante Canaba ba ba Touba ku fi am fu aw yoonu jaar dëkk bu mu jaar rek Sëñ faloo tax mu jaar fa mu jóge fa. tëli bii nga xam ne mooy route Daara Jolof bi mu daal di koy de waa bi mu jógee ci loolu mu daal di fexe sanc jumaa ji muy 1963 7 mu jële tëli bii nga xamante ni mooy Daara Jolof jëm jumaa ji mu nekk 68 kilomètres 1950 52 1962 ba 63 ba 64 ba 63 mu indi ko 63 mu jële waa route bi jógee Kébémer jëm si Touba mu nekk 80 mu nekk 92 kilomètres. mu jëlee ko fa moom mu nekk 1963 ba 1964 moom lañ ko liggéey maag suñu inigré ko nga xam ne ñett yi nga xam ne mooy porte Touba yi yëpp sëñ Fallou fi indi yoon wi te li ci gën a am solo nag mooy mooy si ñu bari xam gis nga courant courant Touba bi xam nga fa lañ ko jëlee Ndakaaru direct nga xam ne dëkk yi jaar yëpp ñu am courant gannaaw gannaaw Cheikh Modou Faral moo tax ñu am courant mu jëlee ko Dakar ba indi ko Touba ci 7 euh, juin 1963 mu inigré jumaa ji ca la waxee woon ne. wax nañ ne ku faatu bàyyi mebet ñu ne ko waaw mbàkk mu ne man de su ma faatu dootuma bàyyi mébét ndax man sama àdduna yëpp benn mébét laa amoon mooy liggéeyal sëñ Tuubaa jumaam ci te àgg na kon amatuma mébét ci àdduna sëñ Fallu bëggoon sëñ Tuubaa ba nga xam daawul jaar ci tur yi danaa ko tedd gi borom baraag bi sëñ bu mag bi rek foofu la tolloon ba ba noppi it jébbal gi mu jébbal ni ma la waxoon sànq ne ñun waa kër sëñ Fallu ay taalibe lañ ndax ay doomi taalibe lañ wala ay setti taalibe lañ mooy jébbal googu mu jébbaloon ci sëñ Tuubaa te waxoon ab yaayaat ñu siiw yoon yaa ayu seexu nafis murtaja yaa faytan yaa malaasu karama laa situma baynal bara yaa alama bi jaay xam ne bi mu waxee loolu bind ko sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa da koo tontu ci aayat boobu moom dafa wax ne ñi nga xam ne dañoo tëdd ba guddi ñu jóg di naafila ak ñaan lii mooy seen fay mooy ni ko suma ba wax ci alxuraan tatajaafa junuubuhum anil malaaji yud'awna rabbuhum xawfan wa tamaan wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun aaya ba ci topp nag moom la sëñ Fall sëñ Tuubaa tontu sëñ muy falaa taxlamu nafsun maa uxfiya lahum min xure min xurrati ahyunin jazaa'an bimaa kaanu yaxmaluun yasurukum wa yanfaxukum wa laa yadurrukum abadan kon sëñ noonu la meloon sëñ Tuubaa waaye loolu la defal sëñ Tuubaa nga xam ne tey Tuubaa bu amee valeur tey bu ñu ko valoriser grâce Cheikh Mamadou Fadal Mbacké donc loolu liggéeyal Serigne Touba liggéeyal ba mu liggéeyal Serigne Touba moo tax ma wax ne la murid yëpp ko ameel bor moo tax kuy def ci sëñ Fallou rek bor booy fay la booy jéem a fay waaye mënoo ko fay ba mu fàggul ñu sëñ loo xamante ne bi ñun kenn mosu ko woon fàggul ci suñ bopp ndax sëñ Fallou Cheikh Ibrahima Fall ni nga xam noonu la yeewu woon Serigne Touba sëñ Fallou la yeewu woon Serigne Touba mooy danaan xam fi mu ko daan jaar ndax wax nañ ne bindal na ko kaamil boo xamante ni bi wax nañ ne kaamil boobu mooy ñaar fukkeelu kaamil ak juróom-ñeent ba ko sëñ bu gudd sëñ bi waxee ba mu bindalee kaamil sëñ bi ne ko sunu borom ne da nga bëgg sëñ ne daa bëgg nga bindal ko mu ne ko bu dee euh, sëñ Fall sëñ bi ne ko su boobam ne waa demal bind ko ba ñëw bi mu ñëwee indil ko kaamil bi mu ne ko sunu borom nee na loo bëgg mu fay la ko sëñ Fall daf ko wax ne ko damaa bëgg képp koo xamante ne ñu nee seexul xadim soo ko déggee sa xol sedd ëllëg na nga mucc bu kenn laaj yow ma xiyam bu kenn laaj ci ci bàmmeel dina sëñ Tuubaa ne dën ab diir ne ko xaaral laaj ko suñu borom bi dugg ci biir diir ñëw ne ko suñu borom bi nangu lan ko xam loolu fàggul nañu mooy wane ne loolu ñëpp la ci boole li a xam ne mbindee fi la ci boole waaye bii sëñ Fall ñëpp daana képp ko xam ne bu nee seexul xadim rek boo ko dégg rek sa xol bi daal di sedd ci ko dégg rek na nga mucc donc loolu sëñ Tuubaa loolu liggéeyal ñëpp donc kon maanaam moo waral nit ñi ñàkk ci moom sago moo tax bisam nit ñi dañ ci ànd ak xër goo xam ne ak génn joo xam ne maanaam daanaka doo su ko gis ñu ñu doxee ko ci benn bis. ci jeexale ci li nga wax Cheikh Mawlana Baar moom nga xam ne bis bi nee suba la kaso bi ko yàlla jëlee muy koo xam ne mu nekkoon jàmbaar. bëggoon sëñ fal loolu man mii wax na ma ne na ma ne jiili ma ne ko ah mu ne ma maag sa bàyyi Abdou Fatah ñoo gënoon doon ay xarit sëñ Fall. waaw am ku ne ma alaaj Baar moom daa bëggoon sëñ Fall waaye sëñ Fall moom bëggoon sëñ Abdou Fatah nga xam ne noonu lañ demee man maa amoon moom ay relation yu bu baax a baax ndax sama sonné bi ma leen mbedd bi ma doon tuddee sëñ fallu ca Dakar la 4 juin 2000 le 4 juin 2005 fekk booba ci semaine boobu la sëñ Mbàkke Soxna Lo nelaw yàlla yokk ay leeram keroog moom mooy ñëwal boppam inigré ko ñu fonkoon ma nag lool ci yu baree baree bëri muy koo xam ne nag bëggun sëñ Fallou mbëggeel goo xamante ne bii amul app nanguloon ko sëñ Alaaji musul bëgg dara mosul soxla dara lu dul dann sëñ fallu rek ba ca mi ngi ak sëñ bi waxoon Sëñ Fall waxoon na ne dégg naa mas nay dem Darou Mouhty fekk boobu xam naa gars yi dañoo commune pour alaaji dem rek ñu bàyyi ko fa sëñ bi dem ba ci yoon mu laa ana baara ñu ne ko ah alaaji daa na daa des tubaab mu taxaw ne nañ dem jëli ko mu ñëw mu ne ko jiitul foo jiitu rek ma ñeme fa ànd ak alaaji baara daa jiitu nga xam ne noonu la meloon ci sëñ Fallu tarbiye ko soxlawutoon dara soxlawutoon kër soxlawutoon njaboot soxlawutoon alal dëddug àddunaam googu daanaka ca la ko toppee ba ni fi sëñ bi jógee nga xam ne ñëpp xam nañ ne am na ngërëmam mu mu mu toftal ci ñi ko fi nekk mu ko mel ne Sëñ Abdul Ahad Sëñ Abdul gis ngeen ko ni ñu ko daan accompagner jumaa ji ak ni mu ko daan taxawoo moo ma nettali ne ma moo ma nettali moom alaaj baar ne maanaam Sëñ Abdul bi muy yóbbu Sëñ Abdul Xaadim euh, Makka daf woo ba ñëw mu ne ko sa baay bii laa bëgg nga yóbbul ma ko Makka te indiwaatal ma ko soo ko defee de fasal naa ne te lii ak lii ak lii ak lii ak lii alaaj baar ne ko mbàkke ni ñu ñaanal ñu ni ñu ko bëggee rek loolu lañ ko defee waaye alaaj nee na nettali ma nee na ànd nañ maag ni dañ doon yéeg escalier bi nee bi ñu yéeg sëñ bi xaw a euh, mbarstiku mu mel ne lu nar waaye nee na bi ma ko awoo dafa mel na xobu garab laa aw te nee na boobu ni ma doon doxee mënu amoon kattan ci téye ko waaye nee bi ma ko ëffee nii pour fekk sëñ baa ngi doon gëm gëm bi ma ko ëffee dafa mel ne daa woy fi bi mel ne xabu garab laa laa ndeysaan bi ma ñëwee indi àndaatu ma ba ñëw Sëñ Blaat Sëñ lam ko lam ca wax lépp euh, nga gis tey a war a mu nekk it première sëtu Serigne Touba. te bi muy doon xel bi dem mu nekk conteste bu jafe ni ko Cheikh Moustapha doone woon doone woon conteste boobu ndax nit ñi ni meloon sëñ Touba sëñ Touba jóge fi kenn bëgg koo wutu daal dana dootutoon yomb waaye doomi sëñ Touba yi ni mel ci sëñ Touba ak nit ñi teg ñu jóge fi ab sëtam bëgg koo wutu du yomb waaye gis nga ni mu ci taxawee gis nga it ni mu nuroo Serigne Fallou ci ni Serigne Fallou doon réalisé ci ay réalisation ci Touba malgré temps bi mu fi dem gàtt waaye réalisation yi nga xam moom lañ fi def donc nekkoon koo xamante ni bi ñëpp sawaroon ci moom nekkoon koo xamante ni bi yéene woon na ñëpp jàmm nekkoon koo xamante ni bi ñëpp ko ñeme woon nekkoon koo xamante ni ku mënoon di dimbale la ci ci ñëpp te dimbalam dimbalam amu ci woon xàjj ak seen donc alaaj moom leen baar noonu la doxoon moo waral nag ba yàlla dogal xam naa ne bëggoon gi bëggoon Sëñ Fall moo tax Sëñ Fall bis bi mu a ñu koy màggal di di di di ko di ko siyaare nag naa bi leneen li dañuy xaar ba Kazu Rajab incha allah ñu mottali ko euh, ci maanaam ay tamit euh, ziar ak ay tamit euh, waxtaan yi fi am ci cérémonie bi incha allah rabbi ci 28 pro loolu nga xam ne maanaam sunu wëllëral sunu xarit la di saa su ne rek ñuy déglu di mu ñuy déglu tamit ci actualité yeeg yooyu sëñ bi kon euh, duñ def lu tamit loolu sant la gërëm la euh, tamit di la ñaanal nga yàgg fi lool ñu fekkee màggal gi ak ni ko say waajur di euh, célébrer nga ànd ceeg ñoom ci maanaam taxawaay bi itam ñu ngi lay sant bu baax xanaa kàddu yi ngay dénk taalibe yi ñu seetaan. waaw di di di di la di la sama collègue yow sama xarit nga bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg di la di ñaanalit bu baax ci ci site bii nga xam mooy Pro 28 yàlla suñu borom barkeel ko di rafetlu sa liggéey bu baax di rafetlu ak sa taalibe waaw ndax loolu ci am solo te gis na ne sa lépp looy def taalibe gi nga ciy jiital kon nag ñu ngi lay sant di la encouragé di ñaanal mboolem yi nga xamante ni ñoom nga ànd di liggéey ci site bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu présentation bi Sidi Diakhaté ci caméra bi euh, Omar Sarr maa ngi koy nuyu de passage ak ci montage bi di ci ànd ak ci réalisation bi ci bekkaay ñoom ñëpp ñu leen di gërëm bu baax a baax kon dig daje incha allah ci màggal ga bu soobee suñu borom